ndakaaru génneb bataaxal gannaaw bu préfet yi seen bopp génne ñoom ay bataaxal ne tere nañu daje boobu dinaa ci dellusi waaye balaa muy dugg ci loolu danaa gërëm Sénégalais yépp ci kóolute gi ñu am ci ñun ndax laata sama parti di ma investir Sénégalais yi seen bopp ñooñu njëkk a investir ndax foo toll ak foo euh, dugg ci Sénégal di déglu waxtaan yi ci réseau sociaux yi di déglu waxtaan yi ci média yi di déglu waxtaan yi ci place publique yi wax ji genn dong la mooy kenn xalaatul élection am Sénégal te suñu jëmm ji bokku ci kon loolu confiance la boo xam ne ëpp na weesu na suñu parti dong kon ñu ngi gërëm sénégalais ci kóolute boobu di leen ci sant laata suñu parti di ñu di ñu investir am na ay kuréel ci politique bi ñii di ay parti politique ñii day mouvement citoyen yoo xam ne waxtaan nañu sax ak ñun ñoo jóg rek dem def seen daje waxtaan ne ñun lañuy tàbb ñu doon seen candidat ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant waaye bu ñu ñëwee ci parti bi it am na fu ñu jaarale mbir mi ni ko charte partie bi tërale mooy képp kuy membre ci parti bi amoon nga sañ-sañ nekk candidat ñu ubbi candidature yi département Sénégal yépp ak yu nekk ci diaspora bi ñu ne leen kenn ku nekk na seet ci département am ndax am na ay candidat ak ñoom ban candidat lañu proposé waaye bu ñu dajalee loolu yépp professeur Ngouda Mboup ak haute autorité de régulation du parti ak ñi muy liggéeyal bi ñu dajalee loolu lépp li mu firndeel mooy kàddu gi benn la kàddu bi benn la mooy parti bi benn candidat la tabb mooy Ousmane Sonko ñu ciy gërëm waa parti bi ndax dañoo nekk ak suñuy nawle gënuñu leen ëpp ñu leen jàng ëpp ñu leen xam-xam du alal guñ leen ëppale kon bu loolu yëpp dajee ñu jël seen kóolute jëmale ko ci ñun dañuy gërëm dellu sant yàlla d'abord gërëm leen yéen ñi ci seen confiance waaye wax leen ni seen kóolute boobu ilaa yow mi diin bu soobee ki bind du kenn koo xam ne dina toog ba matt mu wiccax ne am naa lu ma lu ma ci regretté muy ci biir parti bi muy fi ñu dëgmal mooy bu ñu yàlla dénkee réew mi du kenn koo xam ne dina toog ba mën cee am déception bu loolu weesoo ak mbokk yi aaye bii nga xam ne gouverneur tere na ko suñu manifestation bi dafa dugg rek ci jaay doole gi nga xam ne ki ñu dénk réew mi moo ngi koy jëflanteeg ñun depuis ay ati at te Sénégal yëpp teg ci seen bët ndax investiture boo xam ne ab stade lañu dem jëli stade boo xam ne dafa tëju nga ne trouble à l'ordre public xam nga ne da ngay caaxaan investiture boo xam ne semaine bu nekk suñuy nawle ci politique def seen investiture weekend bee ñu jóge rek samedi am na ko def investiture dimanche am na ko def investiture kenn terew ko ko ñoom ñii bu ñu tàbbee seen candidature ba noppi dañuy dem defi seen investiture lan moo waral tey ñu ne Pastef du def investiture te ku am dégg-dégg ba liir communiqué gouverneur bi li mu wax ëpp na loolu de gouverneur dafa ne Pastef dootu fi def activité fii ci senegal te gouverneur dañ koy bindal rek ne ko signal mu signé ndax gouverneuru Ndakaaru Alhassane Sall xam naa ko bu baax maag moom ñoo bokk promotion ENAM ñoo def ñaari at xam naa lu mu sañ ak lu mu sañut xam naa lu mu mën ak lu mu mënut xam naa ban façon nit la waaye bu ñu nee gouverneur dégg leen président de la république nga xam ne tey ayam jeex na mu war a dem bàyyi ñu si jàmm nga xam ni tey président parti politique la comme ni ma ko doone li ko firndeel fan yi yépp li gën a fës ci li ngeen dégg ci moom politique la jëm waaye du du du mbirum suba ba ngoon jot ma ngay dajale palais ay militangam nga xam ne suñu palais de république la te lii firnde ni lii moo ko digle dem ba palais de république dajale ay militant am waxuñu fa lu jëm ci réew mi waxuñu fa lu jëm ci état lu dul mu nekk foofu naan Ousmane Sonko warul def investiture mu mel ni moom mooy conseil constitutionnel warul nekk candidat te loolu dinaa ci dellu siwaat kon provocation weesuwut lii muy énième provocation nag te dinaa ci dellusi si gouverneur li mu wax te sos te tàmm nañ ñu sosal justice daf ñuy sosal gouverneur daf ñuy sosal préfet daf ñuy sosal ndax li gouverneur wax ci communiqué bi moom rek ko dégg ci Sénégal ba mu daj naam wax naa ci sama interview France 24 te dinaa ko feddaliwaat tey ne bu dee makki Sall dogg na ni day tere suñu candidature élection imma du am ci Sénégal wala suy am dina am ci jafe-jafe joo xam ne àdduna yëpp nañ ci teg bëtam loolu ñun ñoo ko wax loolu ban rapport lu am ak cérémonie d'investiture bu ñuy def tey jii kon loolu tappale la lañuy ñuy essayer ci suuf nag mooy gëmloo àdduna bi yëpp nit ñi ay terroriste lañ te moom Macky Sall nga xam ne bis bu ne mu wax weddi boppam mag moo xam ne day fooy xelam jàpp ni Sénégalais yi dañuy nelaw bis mu ne mu wax weddi boppam ndax du ñu wax dëgg ngeen jégal mu ci kàddu gi politique yóbbu na leen foo xam ne du wax dëgg suba duñ ko wax ngoon sos complot magum jëm mun a taxaw xool nit ñi ci biir bët xam ni li muy wax du dëgg mu koy wax loolu moo ne ci ñoom ndax moom moo wër àdduna bi yépp ne ay terroriste ñoo songu senegal senegal yi doon manifester nee na ñoo ñëpp ay terroriste lañu am ñu ci rax yor ay ngàndaay songu alkaat yi du loolu la ñu wax fii mu dem ci tubaab yi wax ko yoon yónni ministre des affaires étrangères mu dem wax ko ci tubaab yi moom ci boppam mu dellu si ñëw fii bi muy def discours am wax ko ñu teg ci ñaari fan mu dem def interview defe naa ci journal Le Monde baa mu waat ko barki démb muy dajale ay nitam ci palais ne moom Macky Sall lenn rek moo ko mënoon tax a def candidature am lenn rek moo mënoon tax mu déposer candidature am pour troisième mandat mooy su doon réew mi jànkoonte na ak ay risques ay jafe-jafe ay menaces yoo xam ne lu mel ni terrorisme waaw makki Sall mi ne barki démb ay terroristes ñoo nekk ci réew mi Macky Sall moom moo ñëwaat taxaw ci kanam Sénégalais yi ne terroriste amu fi moo tax moom déposé wul candidature am dafa di ay nit yoo xam ne bu leen bu ngeen di topp seeni wax di ngeen xam ne ñu leen wax dëgg bëccëg duñ leen wax dëgg guddi. loolu nag moo feeñ ci communiqué gouverneur mooy ay terroriste lañ ñun Pastef fi ñu bëgg a jëmale réew mi mooy taal ko fi ñu jëmale bëgg réew mi mooy euh, foqati réew euh, nguur gi par la force